Conseil sénégalais des chargeurs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 dund ak dee laas yéen a kaay ñu fekk fa maître Ousmane Seye ak ñi nga xam ne ñoom la àndala nee na 750 yi nga xamante ni wax nañ ne dañ koo dugal ci mbënd mi te ñenn ñi jàpp ne dañu koo tojee dañu koo luubala maanaam dañoo bëgg mu daal di leer yéen a kaay gii di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye ñoom nag nee nañu 750 yi nga xam ne moom la wax ne dugal nañ ko ci inondation yi ñoom nee nañu dañoo bëgg ñi nga xam ci mbir kaay gi di lii quotidien nee na Sénégal crise emploi moo fi am bëri na fi ñoo xam ne dañuy xëy toog ba jant bi so amuñu lu ñu liggéey ay centaine entreprise daat nay tëj ci atum 2019 Sénégal nag li fi tëj ci ay entreprise ci boppam moo bëri lu toll si junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci ay nit ñoo xamante ni ñàkk nañu seen liggéey yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Assane Samb mu xëy jël xalimam di yedd ñenn ci Sénégal yi nee na réew mi di Sénégal am na loo xam ne war nañu koo teg ci suufa ndax yëf fitna baaxul te am na loo xam ne dafay taalum réewa ndax Sénégal ñaari baan ñett ñu ne diw ci xeet wi la bokk wala ci confrérie bi wala nationalité sàngam te loole war nañu ko maytu yéen kaay gii de Les ko nee ay da Diallo li nga xam ne moo ko dal neexu la ndax màggalu Tuuba 2020 gi du ko màggal comme nam ko màggale woon daaw ca bo Safinatul Amaan ci kàddug Sëriñ Moodu Lo Ngaabu moo yëkkati ay kàddu ne Aïda Diallo tere nañ ko mboolem loo xam ne maanaam ay xumbutale këram daal bëgguñu faa benn tànt su ko neexee nag mu daal di dugg ci biir këram daal di ko fay màggale waaye amul benn xumbute boo xam ne danañ ñu ko ko may Aïda Diallo nag lii lépp su ko dalee ñàkk we xalif général des mourides moo ko waral Serigne Modou Lo Ngabou daat nay wax ne Aïda Diallo mboolem koo xam ne topp nga ko ci caaxaan yi nga xam ne moom la nekk war nga Serigne Touba le témoin yéene kaay nee na Aïda Diallo nagam yu bari yi nga xam ne jënd na ko Touba bëgg ko ba tey ci biir yéene kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Serigne Mbacke Ngabou mi nga xam ne mooy chef de village bu Ngabou moom nag li Serigne Modou Lo Ngabou wax dafa mel ne àndu ci ndax nee na loolee kàddu Serigne Modou Lo Ngabou la moom la engagé waaye man mi nga xam ne maay chef village bu Ngabou kàddu yooyee sama yónneeku ci yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na réew mii di réewum Sénégal yàmbaaj ji ni mu fiy jàbbaa jonge bëri na loola colonel Bourama Jéeme daat nay wax ne lu toll si ñeenti tonu yàmba daat ñu koy teg loxo diggante Kaolack Kaffrine Fatick ak jurbel ba tey ci biir journal bi de la mooy ak L'As mu ñu xamal la ñu njiitu réew mi di Macky Sall jël na yeneen dogal yu bees ci ni nga xam ne moom la ñuy joxe suuf si nee na su ëppee maanaam na ko préfet yi wala sous préfet yi wala gouverneur yi joxe maire yi nañu si génn seen loxo di réew mi quotidien nee na doomu réewum Sénégal bii di Lamine Diack ba léegi génnagul ci mball gi ginnaaw bi ñu ko joxarbe baaraamu tuuma ci lu jëm ci mbirum guerre ci IAAF ci Jeux olympiques Londres 2012 am na beneen enquête boo xam ne ubbi nañ ko ci Lamine Diack ndax dañoo jàpp ne Jeux olympiques Rio 2016 ak Tokyo 2020 bi ñu koy joxe ci vote yi Lamine Diack dafa jëndoon yooyu la vote ñu koy tuumaal wàllum guerre yéen a kaay gi di Vox Populi nee na tux mu bari mi nga xamante ni moo am ci mi tax na at mu jot ñaari daal di faatu ñi nga xam ne duñu tux te ñu leen di xër cigarette si at mu jot lu toll si ñaari téeméeri junni ci ay nit ñoom tim danañu faatu yéene kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu chambre d'accusation daat nay lànkal Dame Amara Aliya Baaxur Fatima Jaaja Tall Jibril Njoogu liberté provisoire bi nga xam ne doon nañu ko sàkko ak agent police bii di Lamine Diédhiou yéene kaay gi nee na li ñu leen di toppee mooy association de malfaiteurs jëfandikoo drogue nekk ci seenub appartement jalgati li nga xam ne mooy couvre-feu état d'urgence bi ñu fi tegoona journal bi na ci la Iba Thiam faatu woon ñooñee seenub liberté provisoire Sarr bi ñu doon sàkku dañu leen ko lànkal yéen kaay gi di sunu làmb ñu fekk fa Malick Thiandoum journaliste la mu xam le nee na CNG dañu koo war a daal di audité te Aliou Sarr jamono ji ak demam ci CNG daat na jot sëkk yéen gi di Stades nee na Edouard Mendy tey jii si àjjuma ji lay commencé entraînement ma ak équipe bii di Chelsea Frank Lampard mi nga xam ne mooy entraîneur ba nee na ñëw bi nga xam ne Edouard Mendy ñëw na ko Chelsea dafay tax concurrence bi gën a tar Stades yéen kaay nee na Liverpool ba léegi nii ma ngi gént Kalidou Koulibaly ak Van Dijk conseil